vous pouvez me poser des questions en me disant lu fi indi lii est-ce que aussi comme on dit celui qui a annoncé dafa amoon muy Pierre bi dafa amoon un objectif ou un agenda personnel dans un secteur ba nga xamee ne ci lay liggéey bu dee ñoom dañ ko ci topp kon mi ngi leen dugal ci guta mais euh, est-ce que euh, xam nga tamit euh, les investisseurs mun nañu fi fustiger mesure bi mm. ñi nga xam ne euh, dañuy bàyyi xel le climat des affaires mm. euh, xam toutes les réformes qui ont été faites pour attirer les investisseurs mun nañu ne ah attention mais euh, sénégalais yi ñu ci bari dañoo yàgg a mettitlu les constructions au niveau de la de la de la corniche et Pierre Atepa bi mm. ak ay ñoñam ñoom ñoo jëloon en charge ce ce ce combat là man daal franchement combat boobu gis naa ko xaw ma les de la corniche mais Pierre Goudiaby Atépa moom nga wax je suis sceptique pourquoi bu dee corniche bi li fi nekk ci caax-caaxee corniche moo ko jiite ku fi indi fi hôtel Azalay nekk kan moo ko titre jaay ñu jaay ko ay ñu jox ko ay dara si la c'était Pierre Goudiaby Atépa qui a fait les pro les plans. hôtel Azalay fii je parle ma ay dara la. munoo bokk dëkk Kajoor mi ngi may dégg te barki démb yare wax nañ téléphone ah moom Atépa moo ko moo toppatoo terrain boobu kon loolu du loolu loolu loolu lan la Radisson Radisson bi kan moo ko toppatoo Pierre Goudiaby Atépa Radisson bi kan moo ko toppatoo Pierre Goudiaby Atépa ak feneen ak feneen donc c'est vous dire simplement que aussi parfois faut pas aussi qu'on ait une indignation sélective il faut pas qu'on une indignation. mais man à, à l'époque quand le débat s'est posé il donnait un exemple l'hôtel Radisson en disant que nañu construire. en en ah, ñu mën a ñu ah, mën a am une vue. Euh, sur la mer et c'est un peu le cas de l'hôtel Radisson. mais kon kay kon kay nangu na ni Radisson mu ngi ci géej gi ko fa moo ko fa samp dama bëggoon mu ni ma la mosuma caa jege mosuma caa laal mais moo ko fa samp maintenant bu ñu defee ay normes nag ba suul ko. ak loolu loolu c'est autre chose parce que aussi kay tabax dafa am autorisation de construire joxe plan de construction service état yi xool ko urbanisme cadastre domaine protection civile ak ñëpp ak environnement ñëpp lañuy joxe seen visa projet bu nekk ak zone bu nekk ak la fa war a nekk jàpp naa ne que nag fonctionnaire état yooyu c'est des fonctionnaires yi nga xam ne xëy na nag euh, kenn gën leen a bëgg réew mi kon bu ñuy def xam nañu lan mooy jëriñ ak lu jëriñ loolu kenn du ko dind ci li la wax loolu fii fi lañu fekk fi lañ ko dund fi lañ ko dund extension Radisson euh, teeru bi ak extension Radisson de le bloc de pierre tey boolee da wax waxu géej gi da ngay romb pus géej boo toogee si Plaza da romb si Plaza di nga gis géej gi doo ko gis ku ko fa def c'est la même bloc Radisson boo rombee doo gis géej gi dañu wax nga dëgg rek xam nga déclaration naan ko wéy dañuy wàcc ba doo gis géej gi mais loolu ay communication la mais boo fa rombee doo ko gis yow boo fa rombee doo ko gis kon ana géej gi ngay gis loolu ay tuur la dem la nit ñi rek c'est ça la vérité aussi donc kon aussi buy wax nañu wax li nga xamee ni que dañuy wax li am normal na nit ñi accéder à la plage boo xoolee par exemple quand il faisait l'extension de du Terrou-Bi l'État du Sénégal sous le gouvernement Ablaye Wade en 2007 avait dit ou 2006 avait dit bi ñuy préparé aussi ñu leen dangeen def extension mais na ngeen aménager diggante teeru bi ak. Euh, Soumbédioune euh, Soumbédioune non diggante teeru bi ak euh, foofu xale yi foyee nu mu tudd. la plage des enfants Magic Land ngeen aménager ko pour que la population riveraine puisse accéder à la mer mais teeru bi l'a fait donc yaa ngi c'est des aménagements que les gens font et en discutent bi ñu toogee fii sur le parcours sportif. Euh, le régime de Macky Sall a attribué à l'ambassade de Turquie un terrain population yi jóg ci ils avaient voulu faire dans le même système que leneen yooyu aménagement Turquie dañ ne yéen écoutez puisque dafa am coow nañu jox feneen ñu jox leen fii ci wetu monument de la renaissance bàyyi fa terrain ba yaakaar naa ne yàlla bu ñu lay jox nañ ko keneen donc yooyu aussi dañ ko fi gis mais gouvernement